Baba Aidara ñu ngi lay nuyu di la Euh, jërëjëf ci li nga ma invité. nga bokk ci euh, doon membre exécutif bu centre victime u yi euh, bu yàggul maanaam le vingt cinq novembre gi ñu génn la commission vérité réconciliation et réparation daal di jébal njiitu réew mi Gambie rapport am jëm ci exaction yi nga xam ne moom lañu ñu jàpp ne njiitu réew bi mu wutu moom la def mu am nag ay témoignage ay victimes ay témoins ak ñeneen yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne bokk na nañu ci maanaam ci ñi li ñuy tuumaal euh, noonu euh, tey ji ñaata dossier ci xayma euh, la ñu jàpp ne moom lañu ñu xool. waaw comme ni nga ko waxee commission bi jeexal na rapport bi mu waroon a def pour yóbbul ko président bi pour président bi décider si niñ koy war a mais léegi depuis commission bi ba mu commencé. Mhm. jël nañ bi ay ñetti téeméeru cas yoo xam ne indi nañ leen ñoo xam ne victime ak ñi nga xam ne ño tooñ victime yëpp moo nekk ñetti téeméer yooyu noonu. am commission bi demoon na bi métti woon na torop parce que um, yenn yiñ fa daan dégg doo foog ne sax ci biir Gàmbi la parce que Gambie comme niñ ko daan xoolee dëkk jàmm et après ñu ci dégg yoo xam ne dina dox sa bi rek ni nga koy xalaatee ne loolu la amee si am kaawu victime yi mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, tey jii euh, justement euh, lan ngeen jàpp ne dossier bi wala sax nan ngeen nammee dossier bi nu wéyal ko gannaaw recommandation yi ci gis yéen ñi victime yi lu ngeen namm ci dossier bi. waaw dossier bi liñ ci bëgg laa koy ooyee. Hmm. mooy am du ñu mun a yóbbu ci tribunal mm-hmm. parce que Gambie amul xaalis bi sax pour eh, ñu door tribunal bu mel noonu parce que tribunal yu mel noonu. doo leen jël rek teg déedéet day ànd ak xaalis bu bare bare mm-hmm. pour rek jox la exemple Sierra Leone pour seen bos rek c'est ay centaine million bu dollars moom lañ ci defoon mm-hmm. muy Afrique du Sud même chose Rwanda alors dafa nekk loo xam ne yenn yi day métti pour nga taxawal lu mel nii alors moo tax nag li ñuy essayer pour def mooy seet naka la ñuy indee loo xam ne ñu ngi koy ooye hybride tribunal hybride lay nekk loo xam ne comme façon ba biñ defaroon abré si temps yam ak Reed Brody mm-hmm. waaw façon yooyu lañuy xalaat ne peut-être ñun tam mën nañoo def lu mel noonu mais jusqu'à présent benn décision amul dañuy nekk di xool rek loolu lañ nekk di def te depuis recommandation yi ñëw nañ léegi léegi gouvernement bi parce que ñoom ñoo war a jël premier pas bi pour ñun ONG yi ñu dimbale leen parce que ñun niñ leen lay mën a dimbalee mooy comme ñun suñ partenaires yi mun nañoo seet naka la ñuy mën a def pour créer leen loo xam ne dina mun a dimbale victimes yi pour ñu leen defoon lu ñaaw ñu jaar ci yoon waaw justement ndax am ngeen yaakaar ni autorité yi fa nekk jamono ji dinañ woyal dossier bi ndax bu yàggul dégg ngeen ñuy laam-laame ne Baro ak kii di Jammeh ñoo ngi euh, am ay waxtaan waaw diggante Baro ak Jammeh moom ñun victime yi kontaanuñ ci woon dara biñ déggee ne Baro dafa bëgg a ak Jammeh et en plus même bi mu visite Kër Jammeh pour wane ne ouverture am pour bëgg a ak moom waaw wane woon nañ si suñ desa desati suñ naka mer suñ suñ mer ci loolu noonu waaw grosse déception la woon sax mm-hmm. mais ñu demaat tuuti comme niñ ko xamee si suñ politique tey xarit lañ ëllëg ennemi lañ mu dem tuuti Jammeh bañ Jammeh ne moom bëggul dara pour def ak Baro mais man ni ma ci xalaat mooy ne yàlla rek mooy def um, puzzle bi foog mu def ko mu nekk ni mu war te looloo tax ba xaw ma ban façon mystère moo am ba jaame xalaat ne moom bëggul dara pour def ak kii mais loolu c'est quelque chose loo xam ne victime it si kontaan trop parce que suñ waroon am jaame ak Baro dina doon créer du problème pour ñun ak suñ commission bi en plus recommandation yi mais de ce fait léegi moo tax ñu ngi gis développement yi am te un des développements mooy ne dafa nuroo ni baro léegi dafa pare reli pareel jaame lu ko waral lan moo waral loolu lan ngeen seetlu ba mu jaral leen ngeen wax loolu parce que gouvernement gambien bi dafa dem yónnee ci gouvernement équatorial Guinée yaagul noonu mm. ne leen nañ wax jaame mu bàyyi attaques yi muy attaque contre président bi ci discours yi muy def ak parti bu bees bi mu bokkal te muy GDC ak Mama Kandeh. waa parce que gis nañ ne def na ay consigne de vote. exactement exactement. bu weesoo loolu yéen te yéen a ngi déglu seen gouvernement ci mbiru dossier boobu ndax yéen xalaat ngeen euh, xooli feneen maanaam ci juridiction yu gën a kawe yi pour seen dossier bi mu mësa euh, mujjee antu. waaw. ñun déjà commencé nañ ko sax si je puis dire parce que am na ñett ci ñi mu daan yónni pour ñu koy defal yu bon yi hmm. te ñuy wooyee leen euh, jongleurs ñoo xam ne téye nañ leen déjà euh, non deux jongleurs lañ téye ak Sonko mi nga xam ne ancien ministre de l'intérieur am la Sonko ñu ngi ko téye Suisse am euh, Eh, keneen ki tudd Ibuloo Ibuloo Bay Baylo Baylo moom ñu ngi ko téye Allemagne et un troisième euh, j'oublie son nom moom tam ñu ngi ko téye aux États-Unis mais ñooñu téye yëpp du victime yi ñoo porté plainte waaw xam nga biñ commencé ñu suñ commission bi uh-huh. euh, comme ni ma la ko waxee ñu ngi amoon ay partenaires ñu ngi liggéey ak euh, comme Reed Brody ki nga xam ne lu bari la def ci yëfu yi Hissène Habré ak ku ñuy woyee Marianne Volkmann koo xam ne euh, moom day def ay recherche ay investigation ci yu bari ci domaine euh, violation des droits de l'homme mm-hmm. alors ñii commencé woon nañ def seen ay recherche si yenn yu bari yu amoon te ba ñu pare def nañ ay seen rapport mm-hmm. te rapport yooyu noonu yëpp euh, dañ ko jël joxaale ko ay suñ partenaires yi ba pare ci kaw loolu noonu commission bi dem ni man bokk naa si benn projet bu ñuy def ak suñ ay partenaires yoo xam ne lu ñu wax si commission bi mhm. dañ koy jël ñu def si sommaire sommaire boobu noonu depuis commission bi bi mu commencé ba léegi chaque session def nañ ci sommaire ce qui fait que ne pour crime yiñ commerce yëpp ak ñi ko commerce yëpp ak grand consomme ko commerce yëpp mhm. ñu ngi ko yore si loo xam ne doo ci soona pour wut ko parce que mu si internet bi alors la plupart ci ñu ñu jàpp ñooñu ñëpp li ñuy ooyee um, TRRC commission bi mhm. digest bi TRRC digest lañ koy ooyee mu ngi nekk en ligne loolu moo yombal ba ñii ñëpp ñu téye parce que ñoom ñëpp seen kaa yi mu ngi foofu noonu ci ko ci digest bi ci sommaire yooyu noonu nga xam ne créé nañ ko. Mhm. d'accord kon tey daal seen xel dal na yéen. non dalangul de. Ah. parce que li commencement rek la. d'accord te commencement doo mën a doo mën a satisfaire si commencement. foog yëpp jeex ñu mën a wax ne waaw léegi def nañ li ñu waroon a def. vingt deux ans yi nga xam ne tooñ nañ ko ñu baree baree bare léegi def nañ ci li ñu waroon a def pour ñooñu am seen justice mm. ci la ñuy mën a commencer di avoir euh, un sentiment de satisfaction espoir Baba Aidara ngay responsable benn média foofa ca Gambie Gambie jamono ji ñu nekk ci dernière ligne droite maanaam ay fan rek ci des campagne électorale ba jeex ngeen dem ci ay élection week-end bi ñu dëgmal le 4 tey ñu bëggoon a xam campagne bi ndax mu ngay woyee jàmm waaw campagne bi kay moom alhamdulilah laa ciy wax parce que Gambie gëjoon nañoo am lu mel nii mm. lu mel nii mooy lan mooy ñu gis candidat candidat yi yëpp di def ni ñu war a defee seen campagne mm-hmm. te soonaluñ leen ci benn boor am soonaluñ leen parce que temps u Gamb Yaaya Jammeh am nit ñi sax dañu doon ragal pour nekk candidat contre lui parce que ragal nañ ne dina la essayer pour mm-hmm. Baro moom si boppam président bi moom gis na li ko dal di mu gañee élection yi parce que dafa am pour daw si Sénégal pour ñëwee defee serment yam bi fii mhm. loolu moo lay wan li nekkoon Gambie ak li ñu am tey te mooy liberté d'expression bi ba euh, candidat bu ne mu ngi def li ko wax di wax lim foog ne moo jaadu ak moo mhm. pour ñu fal ko euh, kon daal euh, atum ren campagne yaa ngi jaar ci yoon yéen ñi média yi ndax yéen a ngi am tamit euh, li nga xam ne mooy moyen yi pour ngeen mën a couvrir candidat yépp wala li ni télévision publique rek moo ko moo ko am. waaw euh, ñu ngi mën couvrir parce que man sama média essayé naa ba def ay fonds yoo xam ne. c'était pour ñiy topp candidat yi journaliste bu nekk biy topp candidat dinaa la jox dara loo xam ne di nga mën a amee sa bopp parce que Gambie bi yëpp la ñuy def tour bi alors métti woon na mais euh, essayé nañ ba am nañ candidat yu mag yëpp ku nekk toppatoo na la waaw di def ay rapport d'accord euh, tey euh, ñoo ngi doon wax sax ci ay xibaar ne Ousseynou Daba mi nga xam ne moom lañ jàpp ne moo war a gën a tiital Baro dañ ko hospitaliser ndax li ni mel dëgg la. am boobu duma ci mun a wax lu bari parce que xawma ci euh, torop mais dara xam naa ko. Hmm. moom commencement commencement campagne am bi dem na wër na Gambie presque wër na place yu bari ci Gambie bi de pare ñi gis nañ ko muy yëngatu muy wax. muy def li ko wax comme candidat ñëw na nag peut mu am malaise feebar bu eh, te dañu nekk ci période boo xam ne yi feebar yu ndaw yi day ñëw sedd bi mu ngi door di ñëw changement climat et tout ça mun na tax nga am ay tuuti rek comme politique lañ nekk nit ñi nañ ko gis ne oh feebar na ou quelque chose comme ça mais je crois que il est en bonne santé mu ngi ci wérgu yaram am wérgu yaram te ñu ngi koy gis fan yi mu taxaw ci ci ci seen bi euh, mujjee euh, ah, campagne am jeexal ko bi ma bi ma ko mujjee gis ci mu ngi nekkoon ci tournée tournée tournée yi tournée dëkk yi waaw bi bi ñu dellu tamit defoon nañ benn euh, boo xam ne bu mag la après ci laa géej a gis mais source yi may am ñu ngi wax ne mu ngi ci jàmm d'accord tey jii euh, euh, jeu bi maanaam présidentiel bi yan candidat nga jàpp ne tey ñoom ñooy favori yi. si euh, ni ko anglais di waxee tu horse race a close to call mooy ñaari fas ñoo nekk ci kanam di daw. mooy yéen a close to call waaw close to call mooy jege na torop pour nga wax ci gagnant. Mm-hmm. waaw mooy ñoom ñoom ñaar kii di Ousseynou Dabo kii di euh, président Barrow waaw d'accord mm-hmm. kon daal euh, principal adversaire am challenger am euh, Dabo la moo ko moo ko nar Dabo la ba pare peut-être avant élection yi dinañ gis ay ñu ñëw bokk ak kii wala ak kële parce que foog naa coalition yi waaw foog naa noonu la nit di mun a amee euh, majorité bi simplement parce que dina xala métti tuuti sans nga ñëw doo dem bokk ak ah, ñu lay jaajëfal bu baax a baax Baba Aidara. jërëjëf jërëjëf. yow nga bokki ci centre des victimes bu Jammeh nga xam ne commission bi daal dina jébal bu yàggul rapport euh, bu euh, victime u Jammeh yi ñu lay jaajëfal bu baax a baax.